Bienvenue sur Salam Vision. li nga weesu démb moo la wan fi nga jëm cey fi nga jaar.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 auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim auzu billaahi bismillaahi inna waliyallah salaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu téléspectateurs yi nga xam ne yéen a baaxoo suivre seen émission bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro am ñoomaan mbégte tey dellu si waat ci beneen numéro seet si waat suñu xarit suñu jigéen macha allah ñu gën ko xam ci Adjaratou Zeyda Ka nee naa leen àdduna wërngal këpp xam na ko ndax à travers média Sénégal bi nga xam jaar na fi ci rajo yeeg télé yeeg lépp wax dëgg yàlla ba toog tey yor di ko liggéey ci biir daaraam macha allah ñu bëgg a waxtaane waat ak moom lenn ci xam-xam jagleel ko askanu Sénégal rawatina message yi nga xam ne war na ko def tey jigéen taay mu nawle jigéen am na fi te kenn ku ci ne mu war a am loo xamante ne war na la ko a dolli ci saw dund. Najatou ngi lay nuyu di la ziar di la tadagal di la dalal ci sa biir émission macha allah rabbi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay delloo nuyoo di la fay di la wax ne macha allah yow miin nga kër gi ndax sa kër la di la ñaanal jàmm di ko sàkku tamit ci ñi ñuy seetaan. ñuy ñaanal jàmm ñu nit ñu leen di ñaanal jàmm mm-hmm. ndax jamono ji wax dëgg yàlla ku tiitu tamit mm-hmm. boo tëddee nelawoo yaa ngi sàkku jàmm foo saa su nekk ak noo ko mën a amee mm-hmm. dégg nga ndax Sénégal actuellement nii soxna jàmm soxla na jàmm lool lool lool ñu ngi lay delloo nuyoo bi di la wax ne macha allah kër gi sa kër la d'accord jërëjëf ajaratu Zeyda ci nuyoo bu am solo boobu waaye tamit sa message boobu itam am na solo lool moom xam naa dinañ ci dugg yaatal ko ci Euh, est-ce que euh, bu ma la doon laaj jii fi mu génn bi nga génnoon. xanaa kon tiit réew mi taxoon nga daw génn réew mi wala. wallaay génn dafa mënul ñàkk macha allah. Mhm. ndax euh, li ñuy wax lépp ñëpp lu ne ku ne ci. Mhm. te dëgg-dëgg li ngay jëmmalee sa biir kër. Mhm. dégg nga yaa ngi koy uti ji ci biti. Mhm. ku ne xam na ne borom kër saa yu xëyee day génn kër gi ñëwaat. Mhm. waaye tamit bu fekkee ñi ci biti dañ laa bëgg soxla la yittewoo la. Mhm. dëgg-dëgg du ñàkk nga dem juux fa ñëwaat. waaye li ñuy wax alhamdulilah mu ngi sant yàlla bu baax a baax. ci ñañ fa fekk ak ñi ñu fi bàyyi. ndax dëgg-dëgg kenn ki la bëgg. jar naa daw ba dee. ndax ñi la waroon a bëgg te bëgguñu la. te yàlla dafa dogal nag. kenn ñëpp duñ àndandoor jëm ci benn fois munul nekk waaw kon nag sant yàlla la woon rek mm-hmm. ñu génnoon dëkk bi mm-hmm. yokk suñuy mbir yokk suñuy gëstu mm-hmm. ndax dama naan àddina di fekk yaa ngi ci nekk rek chaque jour da ngay jàng waaw ndax jàng du wees kon loolu la woon sant yàlla la woon ak euh, lijjanti loo xamante nii daal mënul ñàkk ndaxte ña ngay fekkee dañ laa bëgg mu doon lu am solo xam naa ne kon bu nu paree rek di nga ma wax sërëcë bi xam naa ni sërëcë bi nga indaale indaaleel askan bi sax laay wax moom xam naa ni kon moom la ñuy tëjee suñu émission euh, wax nga ko léegi mm-hmm. euh, réew mi jaxasoo na mm-hmm. dee gi bëri lool te bu doon dee goo xamante ne sax deewu yàlla buy rey mm-hmm. waaye dee goo xamante ne nit ñi ñooy reyee léegi tey jii buñ la doon laaj tey ji ci xam-xam ak yéen ñi tëdd guddi yu bari ngeen koy fanaanoo di gës gëstu lan nga ñu mën a indil ci ci ci ci leeral waa di wax ne rek alhamdulilah beneen yoon mm-hmm. ndax defe naa ki may tiitaroo gën a gënal ki may tiitaroo mm-hmm. waa ndax askan wi ñu bëri ñu ngi wax jàpp na ñu ngi defar mais ñu ngi tiital askan bi mm-hmm. te jamono ji li ñu jàq rek dafa doy dañuy wax nañ sàlloo ñaan di génne ay sarax waaye ñëpp digal naa leen borom kër yëpp nag képp koo xam na rek denc nga soxna dégg nga am ay njaboot ci sa biir kër yeewu ñu yaakaar la génne lu sedd guy nga saraxe ko mhm. te ñu ñaan jàmm ñëwaat ci suñu Sénégal gi ñàkk xàmme gi ñu ñàkk xàmme Sénégal mhm. ndeysaan li gars yi di wax dannoo rax nag mhm. senegal rax nañ nu dégg gi na dégg kirim yu bari na kenn xaaratul yàlla suñu borom yow yaay faatal sa bopp wala yow fajal sa bopp li ma ci gën metti nag mooy jigéen ji doon ñaan baat yàlla def na jëkkër gi fasewu ko mais daf ko mujj a rey te ndeysaan rey boobu rek la nit ñi dégg mm-hmm. mais bëri nañu ñaan baat mm-hmm. fasewuñ leen ba pare rey leen ci baatin mm-hmm. ndax dañ leen a abandonné dundatul dundala luñ leen fàtte seeni doom nekk ñoom ci leneen yeewi woo dundul dund gi mu war a dund ndeysaan méttit yu ñu ngi koy dund ñoom jigéen ñi may may wax ne rek cri de la nag métti na ma torop waaye nekk lu la metti lu nekk tamit hmm. suñu borom faj ko hmm. ndax léeg-léeg ñu ne la inna laaha maa saabiliina hmm. yàlla woy muñkat yi la àndal dëgg-dëgg waaye ana li ñuy muñ ana li ñuy muñ mën nañu muñ xiif mbaa mar mbaa war a dem ci say nawle munoo dem mbaa nga war a maa jox joxuloo ma mais naa muñ nga tiim ma di ma rey wax dëgg yàlla metti na torop dégg nga képp kuy ñaankat képp mm. koo xam ne yàlla may na la mm. nga xam benn baat boo xam ne nii xaraf la rek ci alxuraan wala xaraf la ci xam-xam mm-hmm. dama lay ñaan nga utiliser ko rek ngir ñaanal jigéen ñi xale yi ñuy rey mm-hmm. metti na trop mm-hmm. ndax bu la paaka ne ces rek booy waas sa xol muy metti waxuma la nag ñu tiim la di la ko jam mbaa ñu la koy dagg wax dëgg yàlla tiit nañ torop ci Sénégal daal. Mhm. waaw waaye nag ñuy ñaan daal li ñu mën. Mhm. tey ñaan yal na yàlla yemal ko fii. Mhm, waaw. mu doon lu am solo loo ci leeral bi nga leeral mais tey ji est-ce que est que fii jamono toll tey ji euh, yenn jëfin yi est-ce que nit ñi ñoo koy tey di ko def est que du sago seet nit ñi koy def ñu ngi ànd ak seen i sago. ndax ay rab ànd ci wala ay xabtal wala yu mel noonu tamit. sago amu ci. sago amu ci ku ne xam na ne gis nga choc bu nekkee ci kaw tali li mhm. nit ñi di yuuxoo di yëngu mhm. kon nga xam ne ku ànd ak sa sago doo jël sa moromu nit nga mhm. di ko di ko di ko rey mbag wala nga koy def lu metti sago amu ci rab yaa ngi dugg nit ñi lu bon li tey nga dangay nekk ak sa wujju sa doom di balbal lu mel ñu ko neex teeloo gëstu teeloo yar nga ne dañ koo yàq ma ne nga ne dañ koo yàq loolu tamit yàq na réew mi ku ne xam na li may wax société bi loolu yàq na ko dégg nga dangay jur sa doom toppatoo woo ko xooloo ko woo ko nga jël ko bàyyi xel sa wujju tellement que lépp lu ko mën a dal nga ne dañ koo liggéey dañ koo yàq fekk mi ngay jëfandikoo lu bon li di ko jëfandikoo bu demee ba nga xam ne amatu ko day dootu nekk nit day agressé pour am dégg nga metti na torop waaye yàqu bi tamit am na ci ndax rab ñaa ngi dugg nit ñi wax dëgg yàlla ñuy def loo xam ne waruñu ko def. Mhm. doy na waa loolu daal fi nekkoon fi ne moom pexe moom wax na ci am xam naa nag duñ fañ ko jeexalee après moom mooy ban résultat lañ ci war a mën a naka lañ ci war a mën a def ba mucc ci moom tamit. Mhm. dana dana bokk ci yëf yi waaye tey jii bokk na ci tam coow lu bëri loo xam ne ñu ngi koy dégg. Mhm. muy ràngo. Euh, wax ji bëri na. ñu tudd ci ay imaam. Mm-hmm. lu ne ñu tudd ko ci fi mu toll. tey ji moom tey ji bu ñu la doon laaj naka nga gisee Rambo ak tey ji ci diine. Mm-hmm. lan nga ñu ci mën a wax ci moom loo xamante ni fi ñu wax dëgg yàlla mën naa mën sa koo mën sa koo. waaw dama ne. Mm-hmm. balaa a wut lu mu toog. day nduggi d'abord. parce que mbirum Rambo dégg nga yaakaaroon naa mënoon nañ ko saafara ci beneen méthode. mais li nga xam ne dem na ba boroom xam-xam yi ñu ngi ciy wax di werante mhm. loolu xaw na indi benn polémique surtout mhm. man dama jàpp ne mhm. ñi xam soxna soo suñuy wax Rabia te gëstu ay mbiram suñu mbokku ibaadu yi dañuy teg ay nataalam ay filmam di ci sensibiliser ay xale pour ñu muuru ku ne xam na nit kooku ku rafet la woon daan solo lu ko neex mhm. di def lu ko neex mhm. góor ñi dañ daan toog muy wër di fecc di way di def lu ko neex mhm. bi mu soobee suñu borom macha allah mu jëm dafa rafet waluy bu mag la mu dellu ci yàlla dëkk ba ko doon xas di ko wax yaa mel ni yaa mel ni yàlla protéger ko boppam bara bi moom bëri na ñoo xam ne tey ay xale yu muuru xam nañ li may wax ndaxte suñu mbokk ibaadu yi dañ ko daan teg ci mbedd yi di sensibiliser xale yi jàngal ci lu bëri te dóoruñu xale bi saagawuñ ko mhm. dañ koo wan loo xamante ni image la bu amul woon image taarix lañ koy waxal mhm. pour mu mën a wàññeeku sénégalais xolam dëgërul sénégalais bëggul lu bon mhm. sénégalais méttiwul dégg nga man tama jàpp ne mënoon nañ ko yar ci ay geste waxtaan ak moom jëfee beneen jëf waaye fi mu mujj daal xaw na ma def kersa ndax ñoom it ay kilifa lañ ay boroom xam-xam lañ. dégg nga mënoon nañoo werante ci leneen lu dul loolu. Mhm. dégg nga man daal sama gis-gis ci mbiru ràngu. Mhm. dama ko jàngat ci mbiru Rabia. dèjà seen tur yi dafa xaw a nuroo mhm, kon yàlla na am mujj gi Rabia am. ndax nee nañ nit ki soo ko bëggee dëgg. nga wax mu bañ dee ko ñaanal yàlla. dégg sa noonu sax. soo xamee ne kii sa noonu la del ñaan yàlla yal na yàlla soppi jëmukaayam ci yow mm-hmm. ndax sunu borom daraam mettiwul mm-hmm. dégg kon loolu rek laay joxe ci mbirum Rangou mm-hmm. ñuy wax rek yal yàlla seddal wax yi te werante bi yàlla bu mu ñëwati ci kaw imaam dégg ndax man jàppoon naa gëstu dajaloo ay imam mm-hmm. gëstu xam-xam la war a nekk mm-hmm. wala yokkante mais werante amul ci benn diine buñ ko nangu mm-hmm. dégg nga kon noonu la demee incha allah dëgg-dëgg wax dëgg yàlla ndax am njàngale moom fi mu toll nii wax dëgg yàlla euh, war na mënees na ko war a mën a defal doomu aadama ci anam bu ne boo xamante ni ba mu des wax dëgg yàlla man bi ma gisee imaam yi di ci dugg kenn ku ci ne jël ko ba pare Sénégal yëpp jël ko fi mu ne kenn ku ci ne di ci wax mm. wax dëgg yàlla ci benn jëmm joo xamante ni la mm. waroon naa mën a ñàkk la dëgg la mm-hmm. dëgg la mais sant yàlla rek mm-hmm. yàlla baax na yàlla mi nga xam ne mm-hmm. moom mooy defee ay mbiram nu mu ko neexee nañuy jàngatee ci jëmm yàlla ji te bañ di jëfe jëfi nit loolu buñ koy def rek incha allah solution day am ndax réew mi toll na foo xam ne nii tey na nekk ay programme daal. Mhm. jërëjëf ajaratu daal ci leeral boo am solo boobu macha allah bi euh, beneen bi ci desit mu bokk na ci fi mu nii dégg wax naa wax nga ko sànq bu ñuy laaj tey jii dëgg-dëgg njëriñu sarax. Mhm. ci dundu doomu aadama. Mhm. lan mooy njëriñu sarax ci dundu doomu aadama. waaw sarax li gën a tuuti ci li muy def mooy fànq dee moo ci gën a tuuti. moo ci gën a tuuti. sarax dafay saafara ay feebar. sarax dafay indi ay jafe-jafe am na kilifa gu mag guy faral di waxtaan ak man mu ne ma Zeyda ma ne ko naam mu ne ma lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti mhm. del saraxe mburu donte amoo loo lekk dégg mhm. sarax dafa mën a faj lu baree bari day rataxal ay diggante mhm. ndax nit ki boo ko tanee coppati ci li nga am jox ko su dee def la du mooyu woon da lay jublu te nit ku ne xam na ne doomu aadama ku ko bëgg rek la bëgg surtout suñu senegal gi bëggante rek ak soppante moo ñu war mm-hmm. dégg nga ndax sa baay bi la jur soo ko bëggul doo jariñu ci moom sa sëriñ bi nga jokk soo ko bëggul doo moom mm-hmm. sa soxna si la jural ay doom boo ko bëggul doo jariñu ci moom mm-hmm. sa xarit bi ngay partager ak say problème boo ko bëggul doo jariñu ci moom kon sénégalais ak kudul sénégalais bëgg nga jàmm bëgg nga nit ki sopp la te yàlla tax te loolu boo ko bëggee boo basé wu ci sarax dinay faj aajo dina rafetal jëmmi nit ki mm-hmm. dina rafetal sa mujj te dina defar say programme mm-hmm. dégg nga sarax daal li muy gën a faj li ci gën a tuuti mooy fànq deebu ñaaw waaw am na solo ajaratu Zeyda ci leeral boobu noonu bokk na ci gannaaw yàlla dogal na fi mu toll ni moom yow nga génnoon fan a ñëw mm-hmm. na ci laaj boo xam ne tey jii suñu mbokk yi tukki ñoo ko moom lan moo waral tey jii bu ñu koy xool bëri waa na ñoo xam ne ci réew mi dañoo génn dem bitim réew Mm-hmm. ngir sàkku ji uti ji. Mm-hmm. ngir mën a dellu si waat teral seen bopp. Mm-hmm. waaye dañ koy xool tey jii ñi ëpp ci ñi tukki dañuy ne ci ay ci ca ne. lan nga xalaat ni mooy sabab lu ni mel wala luy indi yooyu. waaw macha allah loolu dama ciy taxaw. ndeysaan profité nuyu ci ñaari nit yoo xam ne dëgg-dëgg seen taxawaay ci sama génn daf ma marqué trop. Mm-hmm. waaw kenn ki Papis Mbeng lañ koy wax. Oh, kenn ki abe di mm-hmm. dégg nga Papis Mbeng Mbeng Pédal. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm. dégg nga boo bàyyee fii say waajur. da nga leen di leen bàyyi xel. te ndeysaan ñoom dama gis ci ñoom lu ma yéem démb rek maa ngi koy waxtaanee. kenn ki bu wàccee guddi balaa toog foog mu waxtaan ak yaayam kenn ki balaa xëy. foog mu waxtaan ak yaayam. dégg nga beneen affaire bii nag liy indi jafe-jafe jom ju bëri. Mm-hmm. ci ñoom. Mm-hmm. yokk na seen jafe-jafe. ndax tukki yaakaar la. Mm-hmm. takk jabar yaakaar la. boo ca gisee jafe-jafe. wàcceel wëri leneen. mais da gis ñoo xam ne dañuy am yaakaar defe na buñ demee dañuy bàyyi xaalis. tàgguwuñ seen i jëmm tàgguwuñ seen rawaan saraxewuñu xooluñu ndax place ba baax na ci ñoom am déet buñ demee nag. ndeysaan li ñuy wax fulla mooy tukki waaye jom mooy dellu si dégg nga am na ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla seen jom di leen a mayul mm-hmm. ñu dellu si ak loxoy neen mm-hmm. waaye dama leen wax lii nii ci sama xol laa ko tibbee mm-hmm. dégg képp ku nekk ci ay jafe-jafe bu la kenn àttan àttanul sa yaay àttan na la sa baay àttan na la wagg yim la tegoon ba boot la wallaay boo dellusee mu tatafu la mm-hmm. te bis bu la jëmmalee incha allah dina baax mm-hmm. tukki nag ñaar la mm-hmm. benn nga am benn nga xam waaye ñoom dañ cee yokk bu ci bokkul mooy benn nga dee waaw dem te bañ a cee yokk bu ci bokkul am mbaa dee bokkul ci tukki dañ na la benn nga am walla benn nga xam ñaar yooyu bu ci mën a nekk moom la yàlla def ci sa jëmm ci waaye nañuy gore nañuy gore nañuy gore na ñuy bàyyi xel doomi aada yi hmm. aadama yi xanaa xamoon na boo baree looy tooñ boo tukkee rek mu ci yow hmm. boo bëree lool looy teggi nit ñi hmm. boo tukkee mu feeñ ci yow boo bëree looy sàggane nit ñu baax ñi boo tukkee mu feeñ ci yow moo tax nag damay wax ñett yi dalul sama gaay yi ma leen di nuyu bu baax a baax di leen wax kontaan naa trop ci ñoom. Mm-hmm. yal yàlla defal leen jàmm te defal ñu ko. Mm-hmm. sama waay ji bu góor mooy def soo ne ko yal na nga gudd fan mu ne la ak yow it yal nga gudd fan. kon yal nañ fekkee ñun ñëpp jàmm ji ak salaam. mais metti na ci ñi fa nekk. gis naa ci ay nit yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, doy na waar daal ñu leen ñaanal yàlla bu baax a baax. Mm-hmm. yàlla soppi jamono ci ñoom. waaw. macha allah am na solo mënutoon a ñàkk laaj boobu ñu dugal ko donte gannaaw da ngaa tukki woon bay dooru ñëw sax waaye dafa dafa dafa dafa doon laaj boo xam ne dama ko dama ko lu ma tëdd xalaat la analyser ci. Mm-hmm. gis si ñu sonn ñoo xamante ne tey jii fi ñu toll tey tey tey tey tey. Mm-hmm. la ñuy dundee foofu fii lay jógee ci réew mi di fa dem. wallaahi dëgg la. Mm-hmm. gis naa ci du benn du ñaar du ñett. dëgg la. ma tëdd man dam affaire bi def ma benn cas moo tax sax ma xalaat ci ba indi ko nii. dëgg la waaye li nga ci wax itam am na solo lool macha allah. jom ju bëri rek ndeysaan. wallaahi moo leen ko bàyyi bi ci des mooy tawat ji lëmbe réew bi mhm. nee nañ virus la nee nañ xamuñu lu mu doon mhm. ce que tey jii fi mu ne loolu tey jii mën nañ ko jàppe balaa waaw balaa moom lépp loo xam ne nii dafa dugg ci nit di ko lëmbe di ko sonal mhm. bokkut ca moom indil ko jafe-jafe ak ñàkk ak toroxtaange balaa la dégg gisoon nañ fi jamono inondation lu nit ko rafet rafet boo tëddee yaa ngi xalaat Mm-hmm. yaa ngi dégg gisoon nañ fi problème kaza kaza kaza noonu lay demee demet demet ci lépp lépp macha allah. Mm-hmm. dégg nga feebar yi bari na waaye nañuy ñaan yàlla fajkat yi wér ndax ñiy faj ci boppam dañuy tawat. Mm-hmm. suñu borom mooy nammee ay mbiram nu mu ko neexee. waaye nag lépp lum def muy feebar teg na ca wetam shifaaw. yow mi xamul neel xamu. yow mi mënul neel mënoo. waaye suñu borom moom bunt bu mu tëj ubbi ba ca des. kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm mm-hmm. tey wax feebar daal mm-hmm. yal na ko yàlla teg ki ko àttan mm-hmm. ndax ki ko nettali rek moo ko àttan waaye ki ko liy waajee di wax fekkee moo waral jàmbat kon yal nañu yàlla defal jàmm ndax yaram buy tooy day wow dégg nga kiy dund mooy dee kiy feebar mooy wér kiy am yaram mooy tuuti dégg nga problème nag soo ko xamul maîtriser woo ko benn feebar mën na la dugg yeneen ñett gën a si la mbokku jigéen ñi ci lay wax bëri na ci ñoo xam ne nii la leen feebar tey stress bu bëri buñ am ci seen biir sëy moo ubbi porte boobu dégg nga ndax bëccëg yaa ngi kënkën yi guddi gi yaa ngi kënkën yi histoire guddeeg bëccëg coow guddeeg bëccëg waaye dama naan rek nañ dellu ci muñ waaw nañ dellu ci muñ tey góorgóorlu bu baax a baax ndaxte néeg yëpp neexul kër yëpp neexul waaye ku ne sañ nga dëpp sa cin ba keneen du xam looy togg mm-hmm. kon sutura war na ci am sant yàlla war na ci am dégg nga ndax euh, fekke waral jàmbat bu fekke moo waral jàmbat waaw senegal gii wax dëgg yàlla am na jàmm mm-hmm. te yal yàlla defal ñu jàmm jooju ñu jariñoo ko mm-hmm. bala nga koy xam na nga ñàkk jàmm waaw jërëjëf Adjaratou Zeyda xam naa fi ñuy jeexalee rek bokk na ci waa ji nee na ma fi mu toll nii Zega. Mhm. mën na sëgg di concentré wu ci mbindam. Mhm. te du yàq ci li mu war a wax dara. dëgg la. ma ne ko loolu dama koy laajal sa bopp fi mu ne mu toll. waaw loolu noonu yàlla def na macha allah ñi am nañu desee comprendre ne du bët mooy gis xol mooy gis. Mhm. te dara bu nekkee ci yow. di doon di yow. nu la neex nga koy defee wala nu la neex nga koy liggéeyee. maye sunu borom la nag ñu ngi ciy sant bu baax a baax. waa di wax na rek sant moom wax dëgg yàlla comme musta jeex ci kër mm-hmm. du jeex ci àll du jeex ci dëkk mm-hmm. ndeysaan sa waa ji mm-hmm. waxoon na nañ ko sant la yàlla ba léegi nii ku ne gis na ni muy demee chaque année waaye dëgg-dëgg ñu ngi sant bu baax a baax ci loolu alhamdulilah wax nga ma lu ma neex sama waa ji Ahmadul Khadim wax dëgg yàlla moom boo ne ma sa waa ji sama xol ba day sedd lool. tubaarkàlla bu nu paree dina am lu ma def ak yow. tubaarkàlla Zeyda fi may daanelee sama kàddu gu mujj daal xam naa ne mooy. Mm-hmm. ku xam Zeyda. Mm-hmm. xam ne Zeyda euh, am na cëru suñu borom. Mm-hmm. Zeyda yàlla may na ko day seet. Zeyda yàlla may na ko day fanaanoo. Zeyda yàlla may na ko. yor na course dafa yor turu yàlla. Mhm. waaye Zeyda tam am na ñu ñu bootu ñu bootu ci ginnaawam ñoo xam ne xëy na jëmmam mooy feeñ. Mhm. tey jii bu ñu doon laaj Zeyda. Mhm. ban message. à travers moom ci li xam ne suñu borom jagleel na la ko. nga mën a lancer askan bi. ba kenn ku ci nekk mën a mucc te mën a muus. waaw li ñuy li waa ji waxoon rek nee na seeti woon na benn pël boroom xam-xam bu yàlla may. pël bi gersu na ko loo bëgg. waa ji ne tekk mu ne ko loo bëgg waa ji ne ko tekk ël bi ne ko lu la mosal ak lu la musal moo la fi indi mhm. kon li ma laaj lu mosal jaam yàlla yi la mhm. ak lu leen musal mhm. ñu sant nag bu baax a baax lu mosal ak lu la musal nag dafa jokkaloo muus te jariñ sa bopp muus te jariñ sa bopp ndax fi mu toll nii li waa ji wax damay dellu rek ñu yaakaaraat suñuy wasiila xam ne góor yàlla yi dëgg nañ Sénégal mm-hmm. góor yàlla yi defar nañ Sénégal oh. wax dëgg yàlla ñun bu ñu nangu defar bi ak toppatoo bi ak liggéey gi ñu liggéeyal yàlla ñoom mm. buñ ko karagel buñ ko naxasal mm. buñ ko karagel buñ ko naxasal mooy bu ñu soppi seeni mbind bu ñu soppi seeni mbind mm-hmm. léeg-léeg nga gis koo xam ne nii dafay dafay waxal kilifa loo xam ne waxu ko mm-hmm. dafay jëfal kilifa loo xam ne jëfu ko mhm. waaye dama naan nañ dox dox boo xam ne ni képp kuy sa wasila bu dekki woon tey doo defaraat sa toogaay mhm. waa loolu ay tettal la ay digal la mhm. waaye gannaaw loolu nag ku ne jéem a xaritoo suñu borom waaw ku ne na jéem a xaritoog yàlla yàlla amul ndey amul baay amul doom waaye am na xarit ndax moom moo ne woon Ibrahima xalilu daay dëgg-dëgg ah loolu dama ciy taxaw ndax ku ne xam na ne sama wasila maam Baye Niass la. Mhm. waaye Cheikh Ibra Fall dama ko bëgg. te ku ne xam na ne Baye Niass turam Ibrahima la. Mhm. Cheikh Ibra Fall turam Ibra la. kon sant yàlla bu baax a baax lépp loo fi gis ci àddina. Mhm. doomi aadama la ci yàlla gën a fonk ñaari tànk la ko jox. kon nag man suma gerso fii gis maam Baye suma gerso fii gis Cheikh Ibra kon damay sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah ci bi nga xamante ni. am naa courage yu jàkkaarloog askan wi. Mhm. ndax li may metti maa ko xam. Mhm. ñi ma jege xam nañ li may wax problème dama koy dund te accès gul ci nit ñi. Mhm. yàlla may na ma loolu bu ma ko jooyee ba sonn nit ñi soog koy jooy. kon nag comme li ma naqar yëpp maa ko doon dund ba tey am na courage yu wax ci kon damay wax rek nañuy jotu jortu bu rafet. te ku nekk bañ a ñaaw njortu ci sa morom. bu jikko yi tey rek. toogaay yi rafet yére yi soog di rafet kon asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf ci li nga xam ne nii maa ko fi doon wax mm. lu ci matadi ci man la jóge waaye lépp lu fi mat rek teg naa ko ci loxo yi wasile yi nga xam ne ñoom laa wékku mm. ñoom laa yaakaar ndax ku ne xam na ni tawassulu du fi jóge mm-hmm. tawassulu moom mooy sukkandiku ci sa yaakaar mm-hmm. dégg nga te ñi ñu yaakaar ay jàmbaar lañ mm-hmm. defar nañ Sénégal dem ngeen jëf jërëjëf ajaratu Zeyda ci waxtaan wu am solo bi macha allah waaye ci leeral yi mu doon tam lu am solo wax dëgg yàlla rangu mi li nga ci wax ku ne war na cee mën a jàngat waaye suñu mbokk yi ca bitim tamit la nga ca wax ci jom ju bëri ku ne war na cee mën a jàngat waaye fi nga jeexalee tam dafa am solo mooy bàyyi xel mag ñi bàyyi xel mag ñi dafa am solo ndax fii lépp mag ñi la gannaaw dogalu suñu borom te mag ñooñu ñuy war a bàyyi xel seen lépp dañ koo jëloon. jox ko suñu borom subhanahu wa taala waaye buntu bañ ko doon su sangub sang bi Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam kon noo ngi ñaan ci daraja yonent bi sa borom doole la taxawu doole guddal saw fan doole wéral say cër ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall waaye ci barkeb Cheikh al Islam sa sang ba ndax ñaar ñi nga wékku moom defe naa ku ca wékku ku ne amatoo looy tiit amatoo looy ragal yal na yàlla dolli taxawu la waaye sant itam bu baax a baax internet képp koo xamante ne rek ñu ngi suivre émission bi ci biir seen flash.com di leen ñaanal yàlla kenn ku ci ne fa mu ne lay bëggam ak mébétam ak yeneen yàlla yàlla sama moom mi nga xam ne moo am sañ mën tey def yàlla na yàlla jàppandalal leen seen def ci darajey Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam sant leen gërëm leen ñaanal leen waaye jox leen bi daje incha allah rabi taala ci beneen numéro ak faj sa jàmm su démb moo la wan fi nga jëm cey fi nga jaar moo la def tey li nga doon waay waay doxal te gestu kuy doo di gestu léegi ñu romb laa